sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man tabiahu bi ihsanin ila yawmi din bismillahi rahmaani rahim barki cheikhul xadim jërëjëf Serigne Touba aski Serigne Touba cey Serigne Touba borom Touba moromantewul bokki jullit bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp leen ziyaare di balwax ñëpp di ñaan yàlla sunu borom boole nu jéggal di ko sant ci boole gi mu boole Serigne Touba di ko ñaan mu bokk ci li nga xam ne moo koy neex dañ ko koy ñaan yàlla na ci boole yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha taw féexal ko ba li mu bëgg liggéeyal sëriñ Tuubaa ci toolu islam bi yëpp mu liggéey ko nu ànd ko moom ci daje ci ngërëmul bi eh, démb nag xam ngeen ni dañoo dellu siwaatoon ci tolluwaay boo xam ne moo daje woon ba tax na jotut ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci liggéey bi eh, biñ leen woowee fekk ñoom ñu jàpp lool ba mënuñu woon a jàllale li nga xam moo doon waxtaanu waajal màggal ak yóbbul bi loolu moo doon dem moo doon ziare xisbu tarqiya yi booleeg mbalem nga xam ni waa kër maam Cheikh Rafal nañ ko teg ci nag li nga xam ne ñun dañ cee nekk bokk ci ñi koy saytu muy grand prix international Cheikh Ahmadou Khadim Rasoul pour le Saint Coran muy grand prix bu mag boobu nga xam ni moom lañ Serigne di jagleel ñi nga xam ni ñooy jàng alxuraan te ñaareelu édition bi ñu nekk ci. suba nag war a doon bis bi nga xam ne mooy cérémonie officielle bi kenn ku dib jullit dib taalibe rawatina ku jege te nekk Touba nag loo jàpp nga war ko bàyyi te ko tey jii itam ci leen yendu woon muy ci kër Serigne Touba gi ci Touba Darou Minane nga xam ne suba la ñu seet nag ñi nga xam ñoom ñoo gañe prix yooyu muy prix Cheikhul Khadim bi ñu jagleel alquran ñenn ñoo ci gañe ci xale yi ak ñi ci bokkoon ñëpp rek nag démb. tomb yóbbalu màggal gi mooy waajal màggal gi déggu leen ko tey jii nag ba tey jógewuñ ci ndax travaux yi ñetti fan la ak yeneen yoo xam ni xam ngeen ni tey jii tam moo doon bis sëñ Mayasin Oumy Dieng ñu ko jagleel loolu yëpp di yoo xam ne dañ ci war di am taxawaay buñ ci taxaw loolu moo tax kon démb ñu tegaat bii nga xam moo fi nekkoon ak yooyu nga xam ne mooy xat-xat yi léeg-léeg di nga gis ni waxtu sàngam dana am la nga doon gis gisoo ko na ngeen ci bàyyi xel nag ndax courant bi muy faral di couper léeg-léeg courant mën naa couper ñaareel ba itam euh, mën naa doon connexion boo xam ne dafa dagg ñëwatul te loolu du ajuwul si ñi nga xam ne ñoo yor sàq ma mën naa amit muy programme yu mel nii yoo xam ni la nga daan gis émission ba ca programme bi ca waxtu wa gisoo ko bu mu la jaaxal waaye du jóge ci waa sàq ma ci loolu lay doon kon loolu ñu ngi koy bàyyiloo xel ñëpp ngir koy topp sàq mi waxtu wu nekk nag soo tàmmee dara te gisoo ko rek xamal ne am na sabab ba te des na la ko leerale kon ñu ngi xamal mbokk yépp loolu tey nag li ñuy wax ci waajal màggal mooy ñi nga xam ne ñooy ñëw ñu dolli leen ku ci mën a tuut tànk yi ndox mi nii mu mel bu soppikuwul a ah, bari na lool te ñoom duñ mën di dem ci yenn barab yi xam naa daal ku leen fa mën a bàyyi ba màggal yi ba ñëw loolu bu fekkee ne xale ya dañuy ñoo xam dañoo bëgg di génn ak fu ne ñu di fa dem loolu dana jafe ci ñoom lool waaw bu dee tuut tànk yi nga xam ne nag egg nañ ci tuut tànk lool bukkut ak waxtu woo xam nawet du wax set ñaareel ba képp kuy ñëw xam naa ni boo ko mënee nga wut parasol muy parapluie yi nga xam mooy tax ab taw boo dee génn mu bañ laa sonal wala perméable yi ñuy sol ndax am na waxtu yoo xam ne moom ñi nekk di berndeel gan ñi ak yenn yi duñ mën a bañ a génn waaw loolu du ñàkk ñi mënta bañ a génn nag yooyu say ba ñu wale ko yoon wi it ngeen ci dem ba ci yàgg ab taxawaay am bu yàgg nit ki du toogaay ba du ko mën mu bugg a wàcc loolu yëpp te muy taw kon loolu fàgguteef yooyu daal ko ko mën bi ci ëpp solo nag mooy képp koo xam ne yaa ngi ñëw boo ko mënee indaaleel bâche ak weñ yoo xam ne moom la ñuy bâche ay bâche ndax dëkk bi kër yi am na ci foo xamante ni bii dana mel noo xam ne des foo mën a nekk amul benn werante moom ñaareel ba itam fii nu nekk da ngeen di bàyyi xel ni ni màkk di def munaa nañ fay defee ay tànt munaa boo ajee màkk ku xam màkk wala arafat tuba loolu tàmbali te dinañ dem ba jëmmi jamono loolu day sax day day day daj dëkk bi yëpp mooy ci sañcaan yeeg ba ci biir dëkk bi ba yu yaatu yi nga xam ni kenn néew fa ay mbeddi trente la danañ egg ci nit ñi duñ dal kër kenn da nga gis koo xam ne day jël ay lekk ma ki naanam ak léppam def ci oto ñoom ñu ànd ñëw dib daayira wala leneen ñu dem yor seeni tànt màggal ba awaat ci yoon dellu duñ dugg ci kër kenn kenn lañu dul dem da loolu tàmbali na ay benn benn waaye dana yaatu ji yaatu goo xam ne loolu nag ginnaaw mi ngi am te mënees naa màggale noonu jël sa tànt seen togg ya ngeen di toggeeg ya ngeen di duggeeg lépp bu ngeen ñëwee tànt seenu tànt daanaka am na tànt yoo xam moo kër yam fa ngeen di nekk di màggal bu ngeen màggalee ba awaat ci yoon dellu rawatina nag nawet bii nga xam ni egg nañ foo xam ni barab yi eh, am na ci yoo xam ni du neex a nekk waaye am na ci barab yoo xam ni ndox du fa taa loolu kon koo xam ni tey jii yàlla mën loo na la fa nga dal kër ga góor góor bañ a xat xatul sax waaye dafa amul situation boo xam ni xat na te kenn amul foo rek ngeen jël seenu tànt ba ca bayal ya nekk ci wetu kër gi tànt fa tànt nekk fa loolu kat ñu ngi leen koy bàyyiloo xel ku ko ci man boo mënee indaale lu tànt loolu daal moom buggoon naa ñuy bàyyi ci xel bu baax a baax a baax te ku ko def doo ko rëccu nag ndax dëkk bi moom nii mu mel bu fekkee ni soppikuwul ndax fukki fan ak juróomi ci des bis bu ñu demee ba mu des une semaine te sunu borom ci taw coobareem taw bi taxawul ab ay bis dëkk bi moom bu boobaa da ngeen xam ne ndax bu dee travaux yi ñu war a def ci dëkk waxaale wu ma ko ndax fi moom daa rek am na ci mbedd yoo xam ne yàq nañ ko yàq goo xam ne gas nañ ko ba noppi te eggale wuñ ko ba ci wetu jumaa ji am na ci mbedd yoo xam ne boo fa jaaroon tey jii lañ fa jaar tey jii rek da gis loo xam ne da naan lii nu mën a amee fii ak kon nag waxantuma la ak yi ci des taa yi nag moom fi mu taa moom am na ci oto yoo xam ne yi nee naa ku oto ku ci oto bu nekkul état na ko fekk mu nekk na ko defar mu nekk état balaa départ ndax am ndox yoo xam ne oto bu baax sax mënu caa jaar waxantuma la ak nag oto boo xam ne nekkul état te loolu moom bu woon baax set sax képp kuy ñëw da ngaa a jël sa oto defar ko ba mu nekk état ku am leen fayda itam ak fulla ci nag ci client yi képp ku ci dugg oto boo xam ne day daw xel yoo xam ne xamu leen ko sëñ bi taxaw leen taxaw leen ko poñe leen ko chauffeur ko nag bu jëree sax kenn ku yor permis nangu ngeen nangu ba kooko dawal ko ba isi Touba waaye oto di ko dawal nu mu ko neexee kenn du wax ba mu xëy di ko rëll loolu nit ñi ñoo ñàkk fayda nag am na ci loo xam dugg client ñoo am fayda wala ñu buñ ko robbee gendarmerie wala police ñu ne ko kii li muy daw ëpp na te day double troisième position nangam ak nangam lay def su ko defee kooku jël numéro ni leen fu mu ko defeeti sama téléphone nii woo leen ma ma woo leen ñi ma woo ña ca balaa egg ñooñu bu ñoon jàpp ko sëñ bi lii système la pour accident yenn yi wàññeeku client yi ñooñ am nit ñoo xam ne dañoo amul fayda ndax gone gu tuuti moo mag la wala gone yor oto di ko def nu ko neex yor ay bakkan yéen ñeneen ci biir mel ni day ay esclave day na yilif kenn du ñu may wax loolu wala bu ñu waxee ba génn ca loolu jaaduwul da ngeen di am fayda fu ngeen rombe eh, eh, eh, ay gendarme wala policier ñii ci yoon ngeen ngeen ngeen taxaw ni ko rek kii li muy daw ëpp na nii lay def nii lay def léegi nag bëgg nga wax ci am na nu ngi sax léegi dinañ egg foo xam ne bu amee ko am permis ci biir kii bi ñu nangu ko jox ko kooku moom eggale leen Touba su loolu mënut amit jël numéro mu jël ko lu mu koy ngeen gisati mu def loolu woo leen ma nekk ci kanam balaa egg foofu dinaa ko boobu ñëw jàpp ko lii bi waaye nit ñi itam dëgg sàggan nañ daal man damay xool dañ naan dugg nañ oto bi nii la doon def nii la doon def mel ni yéen te te ay mag ak waxambaane ko ëpp doole bàyyi ko muy def lu ko neex ah bu bàyyi itam am na loo xam ne sëñ bi nit yaa koy teg sa bopp ah loolu fay dag ful moo ko eggale am na ci yu yaru yu amit teggin yu baax yoo xam ne yooyu yëpp duñ ko def dañ ciy séddale sax dañ ci dañuy ànd ak taalibe sax ndeysaan waaye am na ñoo xam nag xaalis bi jaral ne leen daw xel yoo xam ne am na ci ñoo xam ne dañ ci ñoom seen yoon xamuñu ne ay bakkan la ci yàpp nii laay dawale neex laa def moomu leen ma nangam nangam su ko defee nag yéen ñi mel ni yéen ci ay kilifa ay mag jëm muy nekk ci oto loolu nag ñun a dindi seen bopp waaw gendarme bi ak police dugg ci oto bi deux cent kilomètres mu nekk ci biir oto bi fu mu dawee mu naan ko jaaral ni jaaral nii ñi nekk ci oto yi ñoo war a bàyyi xel lool ñaareel ba itam yoonu Touba ak Dakar yoon yëpp sax waaye yoonu Touba ak Dakar tey boo xoolee waxoon naa ko dinaa ko waxaat tuuti rek xam nga jàng nekk ingénieur te nekkoo xamoo état des lieux géographiquement loolu dafa même boo nekkee ingénieur wala nga nekk kuy planifier wala xam aw yoon ak lépp am na lu des mooy état état état géographique bu Sénégal tey jii xool leen Touba Dakar. ñetti yoon ñoo ànd yoo xam ne ñoo tolloo dañoo làng jëm si Touba route nationale bu njëkk bu yàgg ba Touba la jëm si raay bi mu ngi ci wetam diggante raay bi ak route nationale bu yëgg bu jàkk ba mëtul cinq kilomètres wala wala quatre kilomètres ñoom ñoo ñoo làng côte à côte ñu jëm si Touba ñu jógati jëlatu autoroute à péage mu làng ak ñoom ñetti route yoo xam ne ñëpp te loolu tey bu fekkoon sax bi ñëwee bu ju Mbàkke jël nañ contournement boo xam ne day contourné Mbàkke jaari Daaru Salaam dem jaar Daaru Rahman ñëw ndindi loolu bu boobaa day tax mu ubbi yoon woo xamante ni bii dëkk bi du xat ndax am na ñoo xam ne Mbàkke la ñuy yëpp fa la ñuy màggale am na ñoo xam Daaru Rahman la ñuy màggale am na ñoo xam ndindi la ñuy màggale ñeneen ñi ñëw raay bi moom nga bàyyi ko fi mu nekk ndax mi ngi fi mu nekk mënut a déplacé wu su ko defee raay moom am ñoo xam ci autorail bi ñuy dugg dugg ci biir autoroute APS bi ci yoon bu doon calculer di xalaat am ay xalaat am idée am vision bañ koy defar mu jëm si Touba biñ ñëwee ba Thiès li ñu war a def mooy dañ ko même moom nawet jaar kii sax dañ ko war a bu jë bu jaarul yoonu Kayar Kayar ñëw ba Thiès mu mu continuer ñëw ba ci kanam Thiès mu jàdd wut Tivaouane ñu ngi lëkkale ñaari dëkk diine yi diggante Tivaouane ak Touba ak Ndiassane waaye li gën li ma gëmoon wax rek pour mu bañ a complet autoroute bi bi ñëwee ba cees bu ñu bu ñu romboon Thiès deux kilomètres ñëw ci kanam Thiès ci kanam Thiès ci penku Thiès. daal di tourné wuti Tiwaawan dem dem ba dem ba Njaasaan ñu romb Njaasaan dem ba Tiwaawan romb Tiwaawan diggante Pire ak Tiwaawan ñetti dëkki diine foofu la ñuy jël autoroute mu départ wut si Touba xam nga boobu bu ñëwee fan lay génne mi ngi génn si ci booru ginnaaw hôpital Cheikhul Khadim lay génne si ginnaaw hôpital Cheikhul Khadim lay génn su ko defee am nga ñaari entrée yoo xam ne jotewuñ dara pour nga dugg Touba désengorgé foofu raay ba mu nga fële dend ak route nationale bu njëkk ba autoroute à bi moom jaarale nga ko lëkkale nga ñett am nga autoroute boo xam dafa jóge dakaar ba Touba jaar Tivaouane jaar Ndiassane jaar jaar jaar Pire ñetti yooyu yëpp di leen di lëkkale mais am na leen lu lu lu daxat loolu Kajoor ak lépp Kajoor gépp gépp gépp léegi booba ñu jóge Ngaye Mekhe day ñëw ci autoroute bi dugg ñu jóge Mboro day ñëw ci autoroute bi dugg Kébémer sax dañuy gis ñu ko dàkk si autoroute bi su ko defee da ngay daal di lëkkale Kajoor ak Bawol fi mu nekk ñetti ñetti ñetti voies yi jëm si Touba làng moo jaaduwul. ci nit ñuy am vision autoroute bañ ko defar mën nañu ñëw ba ci kanam Thiès bu ñu passé Thiès un kilomètre ñu wuti Tivaouane ca kanam Tivaouane duñ jaar ci biir Tivaouane ca kanam Tivaouane la ñuy jaar fa la autoroute bay nekk jaar ca kanam Ndiassane romb ko dem ba diggante Pire ak Tivaouane ñu départ autoroute mu jëm si Touba nag su ko defee bu gànnaar la oto bi duggee Touba léegi loolu lu ko daq si bi di nga ubbil waa waa Kajoor gépp léegi di nga di nga désengorger foofu nee naa la Kébémer sax dina fa ñu fa parce que diggante Kébémer ak ngay ak ak foofu du dara Mboro ak yeneen dëkk yooyu yëpp noonu waaye nag ñoo xamante ni bii euh, la xam doy beneen bi ci des mooy nit ñi bu ñu ñëwee ba Touba wax naa ko ndox mi ñu bàyyi ci xel ndax xam ngeen ne fuy taa waxoon naa ko loolu bu ci dellu siwaat dinaa leen kuy ñëw seebu nga wut ay carax loolu moo gën a noppale wut yére yu woyof tàng na soo defee soo màggalee ba noppi da ngay nekk jàmm salaam nga dellu jàmm salaam képp koo xam ne da bëgg ziyaare te waxoon naa ko ziyaare yi ñuy def ba ñenn ñi di ci indi ay senam ak lu nekk di ci wane ay nit ñuy jaay mbirum star mbirum star loolu moo bokkul ci màggal gi ziyaare ku koy def mën ngaa dig ba màggal gi passé cinq jours bu la neexee nga toog fi noppalu ziyaare wala nga jiitu si bopp cinq jours avant te dëkk bi fi may waxee yow nii de fi may waxee yow nit ñaa ngi tàmbalee ñëw waaw nit ñaa ngi tàmbalee ñëw boo duggee Tuubaa ku dëkk Tuubaa xam ni boo jógee Mbàkke jëm si ci jumaa ji bu quatre jote jotee dana leer ni ñoom commencé nañu ñëw loolu moom leer na waaw te it mënut a ñàkk ndax am na ñoo xam dañuy waajal si ñii defaraat seen kër ñii defaraat seen i dal ñii yëpp loolu nag ku ci mën a teel a ñëw ba xool situation bi nga mën a defar sa bopp waaye teel gay ñëw mu mënut a ñàkk ndax boo teel a ñëw ci ngay mën a xool situation bi waaye boo bëggee ni ni bañ suba la wala leen nga def ko boobaa itam boo ñëwee di nga nekk ci coono yoo xam ni daanaka day sag màggal dina doy waar lool ndax màggal gi liñ ci jublu mooy nga mën a ànd ak sa féex ànd ak dal noppalu jàng alxuraan jàng sayit bernde nekk ci jàmm ak salaam loolu lañ jublu waaye màggal goo xam ne yow demoo dikkoo lépp ci kaw yoon nga koy def teloo dara bernde woo ay coono nga wax te ne ngeen ak feet la du néew ma sax ne ngeen sëñ bi leen ay bernde bernde rek dafa war a ànd ak ak dal ànd ak jàmm ak salaam ak dal lépp ginaa loolu la war a àndal rek te sëñ bi noonu la ko bëggee ah liñ bëgg yéene leen ko yéene ñëpp mooy kon ñu def ko ci ak dal dal gi nag mooy nga nga nga ñëw dallu soo dalloo fii ziare yi naa leen du obligation sëñ bi ku ñëw dalal fa nga dal toog fa di jàng see xaseet ak alxuraan déggal sëñ Muntaxa wax sukk yi bernde yi ñëw nga xéwlu ca soo amee sa loo mën a indaale ci lu baax dimbalee ko ñi nga xamante bi loo mën ci lu baax rek waaw loo mën ci lu baax indaale rawatina ndox meek te ndox mi waaw ndox mi ak yeneen kër yoo xamante ne bii boo ñëwee yow même boo dee da dal ci kër sax murit noonu lay mel boo jógee doxantu ci quartier bi nga sax di nga fa fekk ñoo xam ne sa poos am na lu ci nekk mën nga leen caa jàppale loolu na ko duñuy xel na ko duñu bàyyi xel nañ bàyyi xel ni buñ ñëw rek dal fi nga dal déedéet indaaleel dara loo xam ne boo ko amee da nga dugg ci kër yoo xam ne wér na li ñi mën nga leen a jàppale dugg ci boutique jëndal leen am ndox wala jëndal leen ceeb wala diwlin wala danga bëgg danga dëkk bi moo toll noonu fi ñu toll ni mu yokkoo yokku na yokk goo xam ni ñi fi nekk dañoo dañoo soxla lu mel noonu waaw ndax kër yëpp du këri sëriñ kër yëpp du këri commerçant kër yëpp du këri borom alal am na fi ñoo xamante ni bii màggal gi dañu yittewoo ku leen taxaw te ñun xam nañ ci dara bu baax a baax ndax li ñoo xam ne dara waaw kon nag loolu kuy ñëw itam boo ko mënoon màggal màggalaale keneen loolu yëpp day yokk sa tuyaab rek yokk sa wërsëg bu déwénee nga yor lu jeex ndax dañ la li ngay def lépp bu dee religieux koy fulal ku ci weddi moom kenn ku ne na na xool rek état bi mu toll ak li mu def ci màggal gi mu xool bu déwénee ban état lay toll kenn ku ne nag laa wax wax lii ci waajal màggal nañ ko déglu te kenn ku ne nga marqué ko sa bopp ko bu dee million nga ci def xool bu déwénee màggal gi c'est ban situation ngay nekk million boobu nga mënoon da nga mën lu ko lu ko ëpp fop ko doublé loolu nag sëñ bi dara tax ko lépp di ci yoonu yàlla kon daal loolu lañ bëggoon a wax ci waajal màggal incha allahu rabbi bu subaa incha allah bu fekkee ni jot gi bu dul loolu nag ñu wéyee rek li nga xam ne loolu lañ nekkoon waaye daal suba daal na xam ni nit ñëpp xam ni bu 10 heures jotee ci résidence Xaadimu Rasul bi ci Daaru Manaan képp ku am mbokk Touba wala ngay dégg wax ji ak foo mën a nekk ñëw teewe si loolu am nay candidat yoo xam ni ñii tur kii Turki la jóge Syrie ak Mauritanie ñooñ ñëpp ak Maroc nga xam ne loolu Grand Prix international Cheikh Ahmadou la te ni mbir moo xam ne képp koo xam ne fonk nga alxuraan wala nga bëgg alxuraan wala nga bëgg sagub Sëriñ Tuubaa loola war ngaa teew ca loola kon nag ñu ngi leen di jox am ndaje incha allah rabbi foofee bu subaa it lépp loo xam ne aju na ci loo xam ne day yëngu ci màggal gi rek waa sàq bi dañ ci taxaw anam biñ ci war a taxawee eh, sëñ ma Yaasin ummi koy defal bu soobee yàlla danañ wax ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñu fexe ba loolu yëpp ngeen teewee ko jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu الحمد لله الكريم سلمنا على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني